su ngeen xoolee programme mu éclairage public ba léegi phase de la mooy programme mu 2023 bi moom la ñuy continuer ba léegi euh, donc ñaari fan yi ginnaaw bi ñu génnee dixième ak cité si euh, pare nañu euh, carrière ak HLM donc maa ngi fa war a dem sax altine ci ngoon yaakaar naa pour war fa tàll làmp yi tey ci ngoon la ñu war a commencer jàmm gën ak Malamine Senghor noonu lañ koy toppoo ba ci quartier yëpp loolu ci phase 2 bi la mais ci phase trois bi muy 2024 bi programme bi gën a ambitieux bi ñu am ci éclairage bi mooy réseau 4444 nga réseau 4444 bi taal nañu làmp yi mais sodium la daaw ci ci phase 1 bi lañ ko taaloon mais sodium la dañu bëgg réseau 4444 bi yëpp basculer dem ci LED ñu ñu boole ci euh, Jean Collin ñu boole ci El Omar ak yeneen avenue yu mag yoo xam ñu ngi ko ci boole liggéey bu sérieux nag parce que entreprise yu mag lañ jëloon ñu defal ñu diagnostic bi euh, def nañ diagnostic bi def nañ rapport euh, rapport bi euh, xaalis bu takku nag la laaj daanaka xaw tuuti mu mat 500 millions mais incha allahu rabbi dinañ ko def parce que loolu dina indi dina gën a taaralaat artère u Thiès yi dina changer xar kanamu cees bu baax a baax a baax parce que réseau 440 dafa yàgg sodium dafa dépassé wu aujourd'hui mais ci 2024 bi yaakaar naa ni mën naa dig Ceesuwaay ci 2024 bi tout le réseau 444 dinañ ko bascule dina basculer wu dem ci ledd incha allah waaw am na li ëpp ci xaalis boobu am nañ ko am na li ci des loo xamante ni matul mais ñi ngi jëm ci conseil municipal ci li ñuy wax ay autorisation et xaalis boobu dinañ ko wut incha allah dinañ ko def jërëjëf